waaw asalaamaaleykum yéen mbokki internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen comme niñ koy defee saa su ne tey nag ñu ngi fii Joal Fadiouth champion bi ñu toogal yaakaar naa gars yi xamee nañ ko moom mooy Zal Ndiaye Zal Ndiaye Sangomar champion bu mag bi moom lañ seet si woon tey moom nag dafa teel a bàyyi bëre mais si biir émission bi nañ ñëw si jaar jaaram si làmb ñëw ci. ay ay performance am fi mu jaar ak li mu def ñëw aussi li ko si li ko bàyyiloo bëre ak xam Zal ci lan la nekk léegi mais balaa ñoo dugg si waxtaan bi dañ koy bàyyi mu nuyoo di ko sant aussi ci dalal bi mu dalal yaatal bi mu ñu yaatal ñëw nañ fekk ko mu ñuy xaar affaire yooyu noonu émission yi buñ ko waxee ak léegi aussi dara yomb si mais avant tout dañuy gërëm suñu frère Abdou Khadir Diouf Arfan ah doomu Pape Boucar Diouf di gërëm papam aussi monsieur le maire bu baax a gis nañ taxawaayam ci làmb ak ni ñuy jàppale ñun waa Lamyn TV ñoo ko ciy gërëm bu baax a baax léegi Zal nuyu nañ la. waaw mbër maa ngi lay fay. Mhm. Euh, di nuyu waa Joal Fadiouth. Mhm. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mhm. jiital nuyu bi nag euh, sama papa moom dafa làqu ci janvier bi. di koy yàlla. mu tëdd gënal ko fu mu jógee. yàlla yërëm ko wala fu suuf ko bokkat sama yaay ndeyet bàyyi tan Amita Diouf moom tamit dafa làqu woon ci weer boobu noonu. ak sama benn xarit. keus sama doom day sama seex Abdou Faye ah leen di ñaanal ñoom ñëpp bu Ndiaye sama mag Fatou Ndiaye sama turandoo euh, di ñaanal tamit bu ndaw seen Fatick yal yàlla jégal te yërëm ko di tamit euh, sama benn booy gendarme bu gaañu woon fii daawu jéeg euh, yàlla ko yàlla jégal te yërëm ko di ñaanal tamit mboolem julli bu làkku rek yal leen yàlla jégal di wax sama yaay bu fi yàlla bàyyi yal na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam a kanam bi yëpp di nuyu suñu waa kër yëpp di nuyu sama papa bu ko Diouf waaw di nuyu tamit Abdou Khadir ndax mo waral li yep di nuyu tamit famille ko djouf yëpp di nuyu wa banlieue 14 banlieue bisap atelier Gourmak atelier Bada atelier ser fofu mooy fréquent de zoal rek ma ngi di nuyu den sant de gram di nuyu sama bop supporter nak ko xamna ne daanoo bëggee Sall rek ma ngi lay bëggee quoi di nuyu suñu wa kër yëpp sama magi yi ndjay Mata ndjay Omar Moun ndjay Awa ko la ndjay sama jigen seen ndjay sama rak pap Samb El Hadj Ndiaye champion bi Ulay Mreetu Fama Khady Diop Kumbis Nogay Kéré den sant ñëpp suñu sama jabar yi la maa ngi bëgg bu baax a baax a baax a baax sama jarbaat yi ne si kër sama rakk yi. ok Zal nuyoo baa noonu léegi ñu bëggoon ñiy seetaan nga wax leen kan mooy saal Ndiaye d'abord. waaw Zal Ndiaye de benn xale rek mhm. euh, bu juddoo Joal mhm. màggee Joal yaroo Joal mhm. jàngee Joal. léegi ñu gis ne Zal bi nekkee xale li mu njëkk a wala si li mu nekkoon mooy làmb ji woy mais balaa ñoo dugg si làmb ji dañuy laaj Zal est-ce que moom jàng na école ak fan la yem. waaw jàng naa comme fu gars yi yem rek CM1 CM1 <laughs> laa yem de. waaw euh, Zal lan moo ko bàyyi woon bàyyiloo woon jàng. damaa ayutoon nag. Hmm. ay moon jàng de ay ma woon de. <laughs> léegi Zal bi mu bàyyee jàng avant moo dugg si làmb ji Zal jéem naa choisir métier wala comme waa Joal di dem si géej gi wala yeneen métier wala daa jékki-jékki rek bàyyi jàng ñëw si làmb ji. non moom bàyyi jàng sama ba dugal métier oto xam nga suñu kër ay chauffeur mhm. mu dugal métier oto. Mhm. ma nekk si oto yi. Mhm. si trop nag damba mën dawal trop. mais amoon âge am perna. ndax boobu xale la te un ko am 18 ans mais am perna. léegi euh, foofu sama ngi nuyu tamit Alaay Diagne. sans patron at vie Ndiaye at René tam dëkk ñaan tàggaan yoon na ko yàlla jégal te yërëm ko xaar ko àjjana ñu ko baax a tamit nag du nuyu Alaaji Jaañ bu baax a baax a baax Alaaji Jaañ tey lu ma xam si dawal oto rek yàlla at moom père maa ne tamit yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko ak ñoom Pape bu naaw ñoom ñëpp maa jàngal métier. léegi Zal bàyyi na jàng dem na si oto yi eggagul woon ci âge am permis mais jékki-jékki Zal jëm na ba doon mbër ñu bëggoon xam Zal lan moo ko dugal si làmb ji ak nan la si duggee waaw béré dañoo ñëw fekk tey jii sama mag Habib Ndiaye da koy fooy ay Oman Ndiaye ak Moon Ndiaye e, léegi may nu topp ñoom Gorgui Senghor ñoom L'an 2000 ñoom Mbagnick ñoom Modou Fall Ndagam Ibou Diaw Waly Mbaye ñoom Kout mais e, ginnaaw ko Pape Boukalon a entraîné léegi bu njàngee wàcc rek dañuy daw topp leen foofu toog foofu si ñoom te di seetaan après Paul Ndiaye doomu Robert moo doon organiser ay mbapat CS di teg ay deli koko ay tàngal ay ataaya yu nekk ci di fo di fo chaque jour bu ñu wàcc rek di dem di bëri ji foofu noonu quoi. mais léegi loolu ay lambu xale la woon ni ñu koy waxee ay mbapat mais Zal mun ñoo xam fan la njëkk a takkee nga mu ne tey day bëre lamb ju mag. ma njëkkee jóg pour nekk mbër. Mhm. boobu maa ngi ànd sax benn xarit Pape Gueye Ngom moom tamit gaañu na si lamb la gaañu la lu ko yàlla jégal te yaram ko ñoo jox la woon ñuy bëri ji léegi bu ñu àggee man fi ma ma moo bëre daanu premier tour boobu bu yaa ngi nekk ay cent et quelques nit mmh. mu daanu premier tour ma jël sir bindu mmh. ma dem ba final mmh. final la benn waaj naan Haza moo ngi Espagne daan ko final ñu jox ma quinze mille jëlee làmb foofu laa tamit foofu laa njëkk a mais loolu yéemoon na dem teel nit gunge ko si làmb ji pour mu bëree nga dem mu daanu nga jël sir bindu ba jël làmb ji bi léegi bi nga jëlee làmp ji jox la quinze mille Zal bi mu ñibbisee Joal ba ne jël na làmb ji waa kër gi nañ leen dundee instant boobu noonu. léegi si suba sama papa moo taxaw gaa Samba Dia. Mhm. ñu koy wax ne sa doom bi moo jël poussière yi ñoo joor yi. Mhm. ñu ko ne ko moo jël démb làmb ji de. 2000 mhm. 2004 la. léegi ma ñëw fii nii fekk boobu ñu tabax kër gi sax ma ñëw ci waa kër yëpp kontaan. ma andi 15000 yi boobu 15000 kër gu ma daloon. jox naa papa ba 2000. booy woon tënk ba tamit ma jox leen 2000 kon daal booy ñëw fii. 7000 laa dese Lagi nga def nonu départ continuer di di bëre di bëre di bëre mais mom yow yow kii Zal fan nga njëkk a jëlee nag. maa ngi njëkk a jëlee nag fii Bayal Sangone. Bayal Sangone si benn mbir bu naan ngañ jaga saax. bu lamb si moo la woon sax. jiw mhm. laa njëkk a jël nag. léegi nag yi aussi nag bi aussi bi nga ko jëlee noo noo dundee moment yooyu noonu. non guddi googu kontaan euh, di jot guddi jot su <laughs> fajar ndax boobu damaa bëre ba sonn di jël ay lamb lamb lamb di jël ay lambur ma am nag. ba jour boobu nag ñu des quatre personnes ma xëy jël nag bi jour boobu kontaan naa sax mhm. waaw. léegi Zal 2004 muy bëre muy bëre ay poussière Zal ban année lay yëg Raw Gàddu. année bi ma bëree mille 2004. Mhm. ndax ñoo jox laa bëree poussière jël ko. Mhm. jóge ñoo jox dem dëkk bu naa Ngoye. refet poussière daanu premier tour. jógee Ngoye ñëw Koba Ngay jël fa poussière. ñëw Joal jël ko kaddu bàyyi pour seex. ànd ma bëri wax lim na ba lim Kobongo yi Kobongo yi suñu dëkk ndeysaan ñuy nuyu waa Kobongo yi moom ak Habib yàgg nañ faa ñëw di jël ay drapeau comme ni ma koy waxee ci reportage yi des fois gars yi dañuy dem bay wax ne sax Lamine daa faral ñooñu mais demewul noonu parce que ñun dañoo dëkk Kobongo yi nekk ay xale yu ndaw waa ñoom Zal ñi ñu toogal moom ñoom Habib Ndiaye di fa ñëw di fa jël ay làmb moo tax des fois su may setan wala su may reporté lamb El Hadj Ndiaye buy bëre damay nan ndeysaan rak Zal Ndiaye rak Abib Ndiaye champion yu magi parce que ñom dañu bok ñi nga xamantene marqué nañ suñu enfance foofu ca Kobongo yag nañ faa ñew di jël ay drapeau ci bir lol dañ comme nee nga bi nga beure raw gadu nga bi nga beure poussière nga beure raw gadu damay ñew ben raw gaddu Kobongo la won lamb joju nonu bobu yéen a ngi si raw gadu yéen ak ñom miniru mais yow ak Fatama dama bëggoon nga revenir ci lamb joju nim mu Fatama Lion Warang waaw man nag maa ngi nuyu waa Koba Ngay yëpp ndax Koba Ngay moom mhm. sekkeen mhm. njaayeen mhm. ngéyeen bëpp ku dëkk Koba Ngay rek maa ngi leen ndax ku dëkk Koba Ngay rek sama terre Zal Ndiaye nga woon te Koba Ngay suñu base la suñu suuf la suñu dëkk sama dëkk maam daal te ñi nga lim noonu xeex nañ ba sonn ndax Zal Ndiaye nag conflit daa da doon bëri foofu torop lu leer nga wax sax bi diggante bambara yeeg <laughs> su mbokk mbokk waa Joal yi billaay foofu noonu foofu moom suñu dëkk ndax foofu man Koba Ngay laa dëkk man Koba Ngay sama dëkk maam la ko ba ngay moom suñ ko ba ngay la quoi moo tax du ma doxaleen ci dëkk ba ñu fa dëkk dañ fay yeewu rek dañ fay yeewoo mais ëpp ñu fa ay mbokk te lamb ngay wax utama garaaw dafa def quatre personnes mu des man mhm. Miniru mhm. Fatama ak benn ku dëkkoon ko ba ngay séeréer Ousmane Ousmane ñoo fa desoon ci lamb jooju noonu mu nekk lamb ju garaaw sax léegi bi ñu ñëw Joal ñëpp nag Fatama mooy jël lamb ji mhm. te affaire yi métti woon ma trop léegi bu ñëwee fi tamit ñu wàcc boobu maa ngi a Pa Dank yal na ko yàlla jégal taxaar ko àjjana di ñu du nuyu njabootam yëpp waaw du nuyu njabootam bi ñëpp su ma limee dinaa juum Aliou Sow daal teg naa loxo bi sa nuyoo teg naa nuyoo bi sa loxo waaw jama teg naa loxo bi sa nuyoo moom paa bi doon naan ga yaa waaye ga yaa Aliou <laughs> bay la comme bay la jama palmarin <laughs> Aliou Aliou Sow maa ngi lay nuyu euh. léegi nag bu ñu dajee maat Fatama dañuy final boobu Fatama moo daan minu moo daan minu ko quart de final ba gaañ ko sa loxo mhm. maat Fatama ñu dajee mhm. mu nekk lamb ju métti sax ma gis sama cumbukaay ma geesu gis waa ko ba nga yëpp sama ginnaaw cumbukaay mhm. ma xam ne lii xare la woon quoi mu nekk lamb ju métti sax lamb ju neex sax yàlla may ma ndam ko si kawam léegi nga dem final léegi ma dem final at gaañ waa ko ba ngay noonu ñu bëre bëre bu métti bu may dóor rek. waaw ba constant benn rek papa papa Gorgui Moussa. waaw daa dugg na ma bu la dóor tey fayul. Mhm. bu la bàyyi nga ñibbis. Mhm. mu ne ko ah garaawul mën naa ko jàppale su ma ko jàppale naa ko daan. Mhm. yàlla may ma dem si kaw moom tamit. ndeysaan ki ngay wax noonu Ousmane la Ousmane Ndour waa port yi Gambien lañ koy wooyee kooku sama grand frère la waaw. lamu jooju xam naa gars yi ñaan nañ la sax mais mujjoo koo may ndax mbëru dëkk la woon moom usmaan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax suñu moom tamit bokk na si li ñu gën a bëgg loo lamb temps bi booy maa ngi fàttaliku jóge nañ bi may def CE2 Kobongo yi jóge nañ fa wàcc 6 heures dem Sambadia seetaani ko keroog bi ma ñib see ay xaaju guddi sama yaay def maa boobu noonu waaw moom Ousmane ñu koy nuyu waa ak gars yëpp gars yi mu nekkal port suñu limee rek dañuy juum. Lamb Diop mooy dam Fodé Palmarin sax. Lamb ji nga ni Sambadia. Mhm. mooy dam ñu dajé ni bari njaay sama tourna pap fi nama ki tay da gis lampu ji de xamul lu ngay bëreet mom de après ñu bëreet tamit fofu tamit yalla ñaan mo dem ci kawum combat bu neex sax hmm daan ko ko ngoy daan ko samba ja fekk ko ci secteur am defaral ko mais à part lamb ko ngoy bi ci raw gaddu bi sal mën na ñëwaat ci yeneen lamb raw gaddu yo nga xamantene neexon na torop waaw raw gaddu mo gëna neex na ci lamb moy 2005 la woon njaay dañ fele ginaaw ko lax do dama gën ma neex moy dëkk bi da bëri mbeur fofu am lamb pa bu gis ma ni ma dama la bëgg yóbbu Ndiédiène nga bëri foofu kaw la raw gaadu mu ne ko fay Ndiédiène mu ne ma ginnaaw Saalum ma ne ko waaw temps yooyu damay tiit ba du ma nelaw guddi ndax damaa enoon loo xam ne antalu ma ko lu em na làmb ab Pape Boucar mu nekk mag di kilifa ne daf may yóbbu at nu Joal bi dem entraînement ma dem tefes sama benn doom ndey sama xarit Mbaye Diouf man te maa ngi ko nuyuwaat paas paas Mbaye Diouf di nuyu walé Mamadou Sango tam nek États-Unis at fallu bu nek Espagne ak Serigne Lam sama xarit Mat Mbay Diouf dañu nek fi fajar 10 h ngoon entraînement yu metti ko moy dem Fabou 5000 ma jox 5000 bes tak ma dem mu rogaadi tamit rogaadi nek rogaadi beuri bëri sax rogaadi bo mo gën a sama rogaadi waaw ko fa daanoon ko ma nga daan ben wa sokun mais ko ma daan rangal demi final ma daan bo mo ci sangaa nem moo tax la ma joon neex ma top sax da dama ag ñu duñ ma bind yap boy doole Paa Bouga nen kii xale la de suuf si ñoo bokk rek ne kii xale la ñu bind ma sama premier combat ku ma dee dama kaa yéen xaañ ku ma dajalaat ma ko xaañ ñu baare ñoo dem di wax ban bindaat ma billaahi may def noonu ba dajal benn waay demi final euh, arbitre bi na ko fexe mu sukk ombre bu sukkee ombre ma jox la jël ma dégg ko waa ji nag mënu ma koo jàpp muy daw arbitre bi dama tiraa ma ne ko bëreegun bëgg a tiraas mais daal yàlla muy def rek ma jàpp ngemb rek yaa ma gën a xam. daan ko <laughs> léegi nga jël final bi njëriñ ak ñëpp si Joal gaañ nañ lañ ko féetee am. waaye bu ñu si Joal ko sama papa kontaan na sama kontaan mooy Papa a moo jël xaas bi. Mhm. ane ma fii. Mhm. si plateau bi ane ma fii si buntu kër gi. wàcc mhm. moo tax ko sama xol sedd guy. ak ma sama papa daa gaaw a jooy. loolu daa <laughs> yéeg si tànk mais avant nga yéeg Joal ñaata at la def si raw gàddu. raw boo déggee dëgg raw gàddu ma dàq si raw gàddu Mohamed dak parce que dem nga jëjëg ñu naal da nga boy dañ ma dak rogado, dama doon jël bañ dak ma ne dootuñ la bind raw non la baye raw ndax man dama fi nangaan fek fa ay yo xamne ñoo ñoo man de mhm. ci raw ñu bind bind ma tank mhm. billahi yalla sutural ma tamit euh ma baye tank ya xey beure final wati poids lourd may final hmm. maxa bu babukar maxa bu babukar waaw bu mar maxa bu mar bu yaayem waaw maxa bu maxa maxa yaayem waaw mamé ko final okay hmm léegi zal bim bim bim ñëwee si tank yi aussi nan la fa fekk wa tank yi comme sun moromi yi mhm. Fodé Sarr mhm. jame Thiok mhm. alu Sali Palmarin euh, ñom kalap kalap euh, ñom Fatama tamit ñom Simon djedjeng ah yaangi lim ay champion waaw amoon na benn mbër bu Simal Simal rak giran Thior la rak giran bi la rak giran waaw amoon na waali waaw waali sax la tudd. boobu amoon na takasi aussi wala takasi yéen a ko jiitu. takasi ñoo tam ñoo ñoo bërëndoo. Mhm. kooku waali la tudd sax waali la tudd. waaw ñu ñoo ñoo nekk ci tànk yi. Mhm. ay ñoom Mineru. Mhm. ñoom Martin. ñoom Jérôme. ñoom Nduuta ñoom Babou Diaga. ñoom Daniel Fadiouth. ñoom kii Ngéeneen. Cheikh Mbacke ñoom Cheikh Mbacke Ngéeneen. rakk jàmme Ngéeneen bi. ñoo ñëpp ñoo ñoo ci tànk yi. léegi ñooñu ngeen nekk si tànk yi lamb yi nan la daan demee wala zaal mën na maa tànnal ñaari lamb ya nga xamante ne neexoon na trop. waaw tànk yooyu moom. tànk yooyu moom dëgg dëgg nekkoon tànk yoo xam ne tànk du ko dàqati. tànk moom du ko dàqati. mais man tànk moo gën neex mooy. yi fii su waa Mouride ñëw waa Palmarin yi ñëw waa Fadiouth di ñëw. waa Ngéléni di ñëw. boo desee premier boo daan premier tour rek champion yi nga bokk. billaahi moo tax mais lamb si moom boobu noonu. muy tege tank nak yu rogaar nak bobu tank yu tank do ko dàkk jowalo de waaw mais gaa yooyu ngay wax noonu zal jàpp nga ne kan moo si gënoon naxaree bëreel Fodé Palmarin mm. Fodé mm-hmm. moo si gënoon naxaree beurel <laughs> da Fodé da fa a beurel mm. ou da fa a beurel trop sax <laughs> mo ci gëna metti beurel at alu Sali ah, waaw alu Sali sek. alu Sali sek. mom mm-hmm. tamit euh, bëri nañ lu bëri ma mom mm-hmm. mais dafa naxaree legi zal nak drapeau tank yi nga jël poids léger ya, ya ban mo la ci gëna neex. drapeau tank yi. ah maa nga man nak eh, sama lamb yëpp mu naa na sama lamb yëpp dër la won billah lamb combat mo sa am dër la. lamb mo sa am dër la. mais ma ay ay ko bi neexon na ma. Eh, bobu tamit boobu mom neex na ma top wa tay man gañ jaga sa bu mbuur tamit boobu tamit neex na ma top mhm. wa parce que gars ñoo celui de souf sa combat bi ya ya ay dara fayaa ko parce que côté bobu nonu côté log bi. ay dara jamono jooju da koo tëjoon ci li gars yi wax yow aussi suñu zone bi fii nii nga teg fi fa sa sa sa sa loxo Aidara jóge fii ñëw Joal gars yu bëri xamewuñ ko wala xamuñ ko woon sax muy daan ba final lambu joojooju nu mu demee woon. waaw lambu jooju bu ma Ousmane Diallo moo ko tëggoon maa ngi koy nuyu Asparvage kooku moom gars yi ko woon jàppale. ndax mhm. kooku doon doxal lambu Joal. doon tëgg ay combat te combat yooyu moo wax di amaat si lamb yi sax. Mhm. jël ñeenti mbër huit mbër leen. Mhm. xam nga tey jii nga lu dàq tey jii nga jël El Hadj Ndiaye jël Gaja Fama ah? dem jël saaka bu mbuur ah dem jël yeneen kat mbëri booy wàppal na yooyu nonu tëggal len ben gala fi zoal la mo dàq lolu ma nga tëggal ma nga tëgg ko nangam carte tang carte faalu amatu sa lamb lolu dara dàq lo mo moo sax lamb tirage ni wa nga deug parce que boko defé ay combat nomé sax du neex ndax mystique day beuri mystique bi day xawa beuri torop mais bo tanné ay quelque ay quatre wala 8 lolu lu graw la dé promoteur yi taxaw len ci lolu non lu ko promoteur tugu na ko teug waaw ren di mu ni be lamb ji na gis mbeur bu ko promoteur tugu ah. ah. ma tugu ko 8 ah. 8 tank 8 hmm. poids lourd hmm. waaw fo nga gisee lamb hmm. daf ko benn dimanche rek loolu moo dàq looy gis aduna billahi nga xam ne loolu gars yëpp koy waajal non loolu affaire bu garaaw lay doon ah waaw ñu ñu ñu lay xaar ci loolu boo ko deful aussi ñeneen ñi aussi loolu war war nañ ko mën a def naa jéem gis mbir yi tegu ko boo nañ nangu legi zal bi mu jógee tànk yëg si poids lourd yi aussi ñan nga fa fekkaat wala ñi nga lim léegi ñoom nga ñoom nga àndal ñi ngeen yéeg poids lourd am na ñeneen ñoo fekk ñoo xam ne say grand frère la war nga fekk leen si poids lourd yi. xanaa xam bu may jël poids lourd boobu Rogaar laay bëre. Mhm. boobu comme nga laa jógee. Mhm. may miniru quart de miniru may nam si yàlla amaat ñu ñëw Joal. Mhm. waa Faye doon tëgg làmbu collège fee Bayal ba. tegoon fa 500000. ñu ñëw seetaan soo maa ñoom mi niwu ma gis lamb ji amul mbër mu a ko leen a ngemb mhm. ñu ñëw di ngemb rek àgg fekk lamb ji fees dalat ay mbër mhm. wala du baax de mhm. mais un jour fekk na Mamadou rek ma ree la ma ko billaay walaay mënu maa daan léegi ñuy dem di daan di daan di daan ko maa daan xamal si ka daan góole bidon ba finaalu Mamadou Ndiaye yàlla may ma dem si kawam en 2000 2006 nga xanaa moom a de la mere woon ba <laughs> kii la ngeen naxoon daan ko wala dama demee woon noonu. sax ngeen combat bi yéen mere woon naa mais boobu lu muy bëree man jubbu na ma. Mhm. waaw lu muy bëree moom ma quoi. ma kii li ñu bëree nii bu ñu doon bëree dix combat. te mhm. ma bëgg daan mais naa ko bëgg daan lu naa ko bëgg daan lu moom. Mhm. foog naa tànk moom boo teg ma jëli ko. te moom boobu tànk lay bëree. waaw maa ko nuyu as passaat ku mën a bëree ngóob nag waaw kenn daf koo bëri sa àdduna. <laughs> mais gars yi dañuy wax Zal Ndiaye borom Bayal saa ngoon yi ñu bëggoon nga revenir ci loolu lu tax ñu jël Bayal bi tuddee la ko. waaw Bayal ba samay morom yi dëkk Joal fii ku ma fa ëpp drapeau amul mhm. déedéet Bayal ba rek. daanu naa fa de mais nu ma ko daamu naa ko compter tamit de mais jël naa fay lamb yu bëri de. Mhm. Mhm. jël naa fa lamb yu bëri muy tànk muy raw waaw jël naa fa lamb yu bëri sax. donc loolu tax ñu la Zal borom borom bayal saa ngoon li nga li nga jël foofu ci ay drapeau moo bëri mais Zal ci poids lourd yi mun nga maa tànnal ñetti lamb ya nga xamante ne bëri nga ko mu neex trop ba nga xam ne tey da laa marqué. waaw. Mhm. lamb ñu tuddoon Mansour Sakho. 2 mhm. millions yi tëggoon Mansour Sakho collège. Mhm. lamb marqué na ma trop. at lamb Yékini bu ñu tëggoon fii 10 nag yi. boobu marqué na ma. at benn lamb Iba Diop bo tamit marqué na ma trop sax hmm. Hmm, hmm. légui dañuy commencé ci bu Mansour Sakho bi lamb joju num démé won wa nak lamb joju dama bëgg tank ma may sen salu premier tour au sos man ko nuy sama rakk ji ordinateur <laughs> <laughs> mo ngi may premier tour xéssu ba bindu su paalu boo bërëse paalu mu nek paalu ru 10 ñom baaw ko palmerin ñoom idi palmerin ñom ben waju naan kirjeen ñom jàmme ciox ñom jol ansu lamb ju 10 sax ko galay def may dan idi palmerin premier tour Eh, maa ngi daan ko baaw ko palmarin si quart de finale yi mhm. muy def demi finale muy def demi finale mat jame cox mhm. badara jaxate mhm. kër jeen bobu nonu kër jeen boobu at kan sax man non badara kër jeen mbisaan waaw at mbisaan ñoo desoon demi finale lamu ji tas di ji mujjul egg lay mudul egg lamu di da bëre won nit dafa bëre won mi top lé nga mat pap nga ñu na bëre demi finale gaay barelen, gaay duggu ci lamb ji lamb ji tass lamu jooju ngay wax dëgg naa Mansour Dia Sora Ngéeñan <laughs> papa Sora mu koy ne mu ma koy nettali benn jour naan lamu jooju neexoon na trop maa ngi koy nuyu di nuyuwaale waa Ngéeñan yëpp su ma limee rek damay juum léegi lamu ji après bi mu tasee lool Zal lan la sentir. ndax foofu sax ama moom tax sax tiraax nañ. ko mhm. ma bara tax ñoo dajee. Mhm. mbisaa nat jami cox. Mhm. maa bara ñoo ngi ñaanante nii sax. mais kenn nangu toon mais moom.

gaa yi mu àndaloon Badou Ndiaye sama turando maa ngi koy nuyu Abdou Faye yal na ko yàlla yërëm tiit ba dugal bagage yi ranger bagage yi <laughs> ranger bagage yi kooku ñoom euh, euh, ñoom moo ñu nga ne ma zaal fu ko dal baaxul de ma ne kii nekk mbir raw gàdd yàlla moo ko dimbale mu yéeg mm-hmm. kii mun naa ko daan billaahi ma ne gën leen bagage waaye tamit kii dama koy daan mm-hmm. gaa yi ne ma ah ñoom nag am na pare nañ si mais yàlla def mm-hmm. ma sa waaye buñ songantee ma natt ko xam naa ne kii ëpp ma après at ñu ñëwaat dañoo ñëwaat ba jàpp tànk bi rek mhm. yàlla may ma ndam si kawam. Mhm. Mhm. léegi après tamit laa ma jox tamit dañoo ba demi final quart de finale yi. courant coupé. waaw mais man moom bokk naa ci ba làmb ji mujjee jeex noonu quoi. mujjee jeex noonu ñu jox leen trois cent mille. ñu jox leen deux cent cinquante mille dañu ko séddale daal ñu ñu quart de finale. ñoo ëppale woon si xaalis bi. ci biir loolu aussi Zal li mu doon dugg ci île est-ce que bëri na. waaw waaw. ndox mi bu baax a baax man bëri naa dëkk ndox yëpp mhm. man final naa baasul final naa baasaax mhm. bëri naa jinda bëri naa munde mhm. ma faa fa ko moom jël naa fa drapeau bu ne jël naa mag looj mais mosuma bëri mag sulu léegi si il yi wan lamb moo fa gën a neex ci nga bëri baasul ndax baasul la ñuy bëri ji mat ab dafay ñoo àndoon bu ñuy dem ñoom Valdo dañoo naa yoo ñëw gàgg na ñoom lay xaar quoi léegi bu ñu ñëwee ñu toog ci gaal gi moom mu ñëw nuyuwuñu mhm. jéggi ma dem jënd benn bitéelu boisson at miisum bi def soxlaa jox ab di fay jël boisson mu jékki-jékki ne ma doo mhm. ma may ma a ko doo nuyoo après mu may ko mun ma yaa ngi jël làmb ji a ne ko amin mhm. léegi ñu dem moo moo ngi ànd ak imbré waa Dakar léegi bu ne ba sa làmb ji nag euh, xam naa gars yi lii ko rek mu ngemb léegi mu ngemboo premier tour ma daan deuxième tour ma daan troisième tour ñu jox ma ko Valdo Jibi Ndong waaw Jibi Ndong jox ma ko waaw ñu defal lu neex maam moom <laughs> ñu defal lu neex léegi nu mu demee woon defal lu neex comme waaw dañoo bëre bëru mét mhm. après ñu taxaw mhm. di xoolante mhm. ba mu jël tirage lamb ji ñu tirage lamb ji ma gagné ko bu nga gagné rek moom moom nee na gagné wuñ ko lamb ji def na lu mu une temps yoo xam ne lamb amul affaire yi taxaw waaw lamb ji taxaw billahi may dem di dem di dem bàyyi jàpp si ba lamb ji continuer ma dem ba finalu rakam bi seeni moo finalu seeni final bi ñu sëggu ko nii mhm. ñett arbitre sëkk ma du mhm. mu ñu féete sama ginnaaw bu ko sifle ma ne du ma ko bëre mhm. lamb ji géew bi yaatu na da ngeen géew bu ma bëre ñoom ñoo la ñu bëre ma may ko ñibbis waaw man la mu dee nag moom doyal naa am naa ay nag ba doyal ma may ko ñibbis <laughs> ok léegi Dakar Zal la mu fa doon dugg bëri na lim nga léegi benn lambu Iba Mar mais Zal est-ce que li mu doon dugg Dakar bëri woon na waaw dama doon bëree Dakar nag mais amoon sens Dakar ndax toujours mu njëkkee dem Dakar sama benn mag bu dëkk ndaayaan moo ma daan uh-huh. premier tour ngan di bot la ma botti kañ uh-huh. mhm. kooku moo ma daan premier tour te boobu maa ngi jógee Kaolack ma Pape Boucar ma jël lamb Kaolack uh-huh. ñu ñëw Dakar koo Ibi jaw Ndiaks maa ngi ko nuyu moom mu yóbbu woon quoi ñu daan ma premier tour foofu noonu waaw mais euh, Zal est ce que mun nañoo wax moom nañ la doon waajalee saison bu lamb ji tëyoon nga xam ne lamb amatul dara amatul ngeen di waajal diwoon Zal nan la da ko doon dundee waaw man nag mën a waajale lamb at ma gis booy waajale lamb bu bokkul ma lay wax El Hadj Ndiaye chaque jour man damay waajale lamb at na ngay waajale lamb bu bokkul de ndax lamb man damaa bëggoon lamb bëgg moon ko ma daan quoi man damaa bañoon ko ma daan man nga daan ma jagal na ma jooy ba suba moo tax man bu lamb sene bu tëjoon nii damay dem géej lu ma am damay dugg sa àll bi di defar sama bopp am na nag ñu ma doon jàppale ku mel ni Pape Ndiaye bu Mbour maa ngi koy nuyu passage euh, maa ngi nuyu Momo Ndaw du nuyu Moussa Ndaw bu baax a baax ah du nuyu Alaaji Jaañ du nuyu jàpp Senghor ñun dama doon jàppale at googu Senghor dama doon jàppale bu baax ndax sëriñ bu njëkk am sa àdduna Alaaji Jaañ sa fépp moom fa yóbbu woon muy pa maam ko ñetti seng moom njëkk yóbbu sa foofu feer ma fa 7000 7150 bu mu yóbbuwaat ci sëriñ ñanda pa maam ko Njaay ma fa jàpp Senghor maa ko nuyu du nuyu Alaaji Jaañ ñooñu moom aw seen fay waaw léegi côté mystique bi ñoo ñoo ñoo si doon jàpp mais côté entraînement bi. waaw dama doon entraînement bu baax a baax. dama doon entraînement comme mbaam. ba tey jii nii soo fekkee may entraînement da ngaa am xanaa da ngay bëre ji déwén xanaa da ngay bëre da ngay préparer saison. dama doon entraînement ba tey mu lay entraînement yi. te ma gis booy de entraînement léegi. da ngay jóge fii cinq heures. dem tefes daw sa benn 2 minutes. toog suuf sa suuf et puis avant takku suuf ñëpp si. man daal loolu du entraînement. Ah. non non loolu du entraînement. léegi côté contact beeg yooyu noonu. Zal ñan la doon entraîné ñan la doon bokkal contact. waaw ñu nag dañoo la woon man Martin Mineku Abraham Sëñ Modou Zos Ngam ah euh, Ngam Ahmed Fall Baye Sidi moo ngi Italie maa ngi koy nuyu bu baax a baax ah ñu doon bokk contact. contact yu méttee métti. boobu suñu grand yi tamit bàyyeegun bëre boobu ñoom Mbagnick ñoom Modou Fall ñoom Lan 2000 ñoom Gorgui Senghor ñoom Gabou Boyar ñoom Waly ñoom Habib Ndiaye mhm. ah, euh, ñoom Ndagam mhm. ñoom nga doon ko tàggal doo mën a daan sax mais boo amee si ñoom dara rek mhm. da xam ne ba demee sa morom bi daan leen waaw. mais ba tey yéen ñi yéen ñi yéen ñi boole woon côté sanc gi la dem côté teranga daa mel ni ñi nga lim mais mënuñoo wax ba jeexal te waxuñu Zal derbi yi biir Joal parce que doon gis ne da fee bëri woon mais am na ña nga xamante da doon bëri ak moom da doon bëre ak ñoom duñ moyante loolu lu waraloon loolu. non daa moom moyante kan sax ñi ma la limal nii rek laa doon moyanteel. waaw à part à part ñooñu mu seeyande. Mhm. ndax ñoom Nduuta. Mhm. ñoom Jean Claude. Mhm. ñoom Jérôme. ñoom André Ngopot. ñoom Cheikh Dior ñoom Baba Ndawi ñoo ñëpp dër la woon moom dër bu méttee métti koo si dajal moom ah na nga xam ne tey di xoosu <laughs> ñoom Cheikh Fall waaw ñoom mooñ waaw est waaw koo si dajal di xam ne tey di xoosu moom fa force <laughs> waaw mais derby bi biir Joal yow mënuñoo lim ñëpp mais Zal kan la ci dajal waa Joal ba nga xamante ne bëree naa ak moom bëree bu méttee métti. Euh, Jérôme daal. Mhm. suñ ko wax doon métti moom. Mhm. dañ doon bëree bëree yu méttee méttee métti ndax moom bëggul ko daan. waaw mm, bëggutoon ko daan quoi dana maam bëree yu métti sax. Mhm. mu ne léeg ñu vacciné léeg-léeg ñu dañoo vacciné daal. mais daal benn bés laa jékki-jékki. léegi Zal yaa ngi woon ci sa combat yaag Jérôme. waaw man joxam moom combat yi metti la woon mhm. après mané mané sangot mhm. ki dot ñu towo de bu ndete def may tan baa ma daan ko mhm. mu ne ma ah ko waaw mais doot ñu tawoo moom ya def ñu dem ñu dem boojeen ñu dem boojeen rek dajé premier dajé deuxième tour lañ dajé rek ci bobu nak ñu bëri rek yalla mi am ci ko kawam fa la jël yu commencé waaw no ci la ci lañ gëj a sax waaw ñaar lañ mos ñaar la am dam ci ko mi benn lamb la benn mbapat la légui Zal Ndiaye ak waa zo ak waa Joal yi dañ doon bëre mais Zal Ndiaye tamit ak waa Fadiouth yi ñan la si nekkaloon génération ak ñan la si doon bëreel ay combat nga xamante ne ay combat derby la dëggantaan. Fadiouth dañeel bu Fadiouth. Mhm. Babou Diaga. Mhm. dër la woon dëgg sax. Mhm. xam nga si tamit tombé ñu mais daje nañ si làmb. ñooñu moom ay dër la woon maa ñoom ma man moom ñëpp suñu combat dër woon nag ñoom Jean Paul Fadiouth moo noonu sama bër. moo tax daan leen. dinañ defoon problème. léegi ñu gis ne seen jamono dafa jafe woon mbër jóge feneen bien vrai yéen nag waa Faajuf yi da ngeen doon bëre yéen nag waa yenn yi waa Joal yi da ngeen doon bëre mais pour mbër jóge woon feneen ñëw jël fi làmb diggante Joal ak Faajuf dafa jafe woon moo nekkoon secret bi. boobu xam nga làmb dafa neex. Mhm. boobu ñëpp dañoo entraîné. Mhm. boobu yow bu sën ko jotee. Mhm. boo demee tefes boo dem fii day ñuul kub ñëpp bokk ndeet bàyyi di contact écrit yi. léegi yow boo dëkkee wàll ñëw fii. boo daanee Zal bo daane nduuda do daan martin bo daane martin do daan babu jaga bo daane babu jaga do daan babu ndaw mbaa zéro wala Moussa le champion man ko ñu au passage ay Cheikh Fall fo mo taxoon nak fi metti mhm. waaw wa man aussi mo koy nuy walé mo Moussa Yande defal sama champion hein le champion d'Afrique l'homme des 5 médailles d'or man koy bëggee bu baax baax donc lool moom mo nekkoon sen secret yeen ñi nga xam ñeen yéen ñoo nekkoon mbëri Joal yi fii léegi ñu gis né zoal niñ ko mëna waxé waxee pénurie pénurie mbër la am ni mako mëna waxé mbër dafee Joal da nga doon lim ay ay dix poids yaa nga xamante ne mun nga wax ne ay favori lañ mais léegi Joal pour nga lim fii quatre wala cinq mbër yoo xam ne bu ñuy lim poids lourd da leen di limaale mun munoo ko loolu noonu pour yow lan moo ko waral. non amatul sax Joal instant benn mbëru poids lourd la am. Mhm. Ablaye Ndiaye kese moo fi nekk mbëru poids lourd. Mhm. Joal yëpp. Mhm. boobu yi des yëpp booy ñoo bëriw poids lourd uh-huh. mais nga bu lamb jeexee ñom El Hadj ay mbiru tank lañ uh-huh. mais pièce ba yàq lamb ji uh-huh. mais Abdoulaye Ndiaye boy mbiru poids lourd deug dëgg bu mat poids lourd deug deug dëgg waaw mais nak amna amna génération bi ñoo ci souf dina ñaan la yalla dina ñaan yalla fay 2 ans mais yow ñak mbeur wi sawal lolu pour yow lan moko waral mu ñàkk mbeur bi jàppale bi desna boy tamit wax boot ci ginaaw grand yi tamit desna bu baax ndax tay ji man bu dama nga bëri ba légui tay ji ma nek mbeur juwaalo grand yi grand yi ma jiitu si làmb te bàyyi làmb damay dem bootu seen ginnaaw mhm. di a jege ñu may da nga gis ne booy dañuy moytu wala waaw booy non dëkk bi booy may dugg sax wala nu mu demee waaw xam nga booy bi nekk instant yi kër gu nekk am nga mbër mhm. te ku nekk fu la yem la ngay yem mhm. xam nga tey ji élage ñoo bokk ndeet bàyyi du ma ne sa beneen mbër di ko dafa lii at lii kooku il faut mu jox ma boppam mbaa mu ñeme ma ma doog ko mën a ñeme mais man duma ñu rek jékki-jékki dem sa ay booy naan def la ni at li waaw boy mu fekké fekkee antamaa lu ngi antamaa jaaro nana boy li da baxul suma ma sama def ni at ni ko ba gis tamit ngay birel wax ngay def lo xamné ne tamit antot lamb nan la boy suma ma li at li nga bako ndax li at lii antot lamb ta lamb yagul carrière lamb yagul da nga ci profité rek am fi lu ko wara am am ci tour bayo ko defi leneen ok si loolu laa bëggoon ñëw wax nga bo wax sa diggante ak El Hadj muy sarak ñu ñu gis ne Zal comme ni ko gaay di waxee si kaw payu El la parce que dañuy seetlu des fois ñi am ay rakk yu bëree dañuy ñëw si lamb yi dëgg la dañ leen di conseil mais dañuy dem si tribune bi toog mais Zal non non ñëw toog si cumukaay bi damay mhm. mhm. eh, a mhm. toog noonu rek du ma ko conseillé ndax moom moo dàkk bëre. léegi Zal liggéeyub wax ñu laaj la ko aussi mënuñ la ko ñàkk laaj muy Zal Ndiaye dafa teel a bàyyi bëre ba tey Zal boo ko gisee forme bi mu yor ak taxawaay bi mu yor nga da ngay gis gis ne kii nii ba tey war naa mun a bëre mais Zal te tey ay say moroom ñu ngi bëre ba tey mais Zal dafa teel a bàyyi lu waral loolu. Euh, waaw dëgg la bëre nag moo ngay bàyyi. Mhm. sëriñ jàpp ma. Mhm. ñàkkuma doole. Mhm. ñàkkuma kàttan. te yàquma dara. amoon naa ñu ma jàppale. te si laa gën a man mi may bàyyi biir si laa gën si laa ëpp jàppale. si laa ëppoon entraînement si laa ëpp lépp mais damaa amoon accident si accident si làmb. accident bi nag dem na ba euh, mutuma béréloo ndax loxo may béré. dem na ba sama loxo yi mënatul jàpp. waaw muy nekk accident boo xam ne daal faj naa ba sonn ma lii moo tax ma mujjee arrêté. waaw. donc problème bi noonu la demee gars ñun ñoo ko déggandoo léegi Zal bàyyi na mbëre ban ban conseil la jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay rakam muy El Hadj mi si kër gi ak yeneen gars yi nga xam ne ñu ngi bëre Joal ak hors de Joal tamit. moo leen jox bëre. Mhm. kenn du ko foyee. Mhm. lamb boo ko boo si nekkee. Mhm. da nga ciy nekk. ndax maa ñoo bokk yow ñoo bokk groupe. man bëre laa opté. yow nga opté jàng métier. kii opté soudeur kii opté menuisier kii opté doon élève. ñoo ni ñuy xëy suba sol seen tenue dem liggéeyi. yow boo xëy suba sol sa dem entraîné ji. bu guddé ñom bu ñuy taxawaalu ji mhm. yow ñu tok seen biir kër boo toogee ci une minute deux minutes ñëwal seen kër fajar nga jog mhm. mbër day mhm. euh di wax lu am wàññi gàtt tank do doxam fonk serigne te serigne bo jublantel bu ko or bul or sa xarit dem bi bul or sa fonk seen waa fonk ñep waaw man daal lay li lay digal mbër yep lu lay digal ndax lamb teranga la li nga mbabat bi ni mu nga si am lu ne billahi wallahi taala mu nga si am lu ne tak ci nak boy nañ ay combat ndax mbiri di bëre Dakar mën nañu leen daan. da ngay teel dem dugg taawut ay combat wane sa bopp mais boo bëggee bàyyi ba egg poids lourd. Mhm. ne da ngaa wax am combat fekk na boo ñoom buusita am dix combat. Mhm. boo ñëwee yàlla mën fuuf mais doo bëre ci ñoom. Mhm. mais da ngay uti combat léegi léegi. combat vingt mille yi ngay xeeb. bëreel garaawul. loo si am rek bëreel di dem ba. combat vingt mille yooyu mooy doon combat cent mooy doon combat un million combat deux na dem dugg si écurie yi ut ay combat mhm. waaw incha allah gën ay champion ay El Hadj Ndiaye ay Minjool mhm. ay Maxalaay mhm. ah euh, ñoo fi des instant yi si écurie ut ay combat loolu laay dëggal booy gaa yaa ngi noddu timis léegi émission bi day tiré à sa fin mais balaa ñoo jeexal Zal joxe na conseil bi mais dañ koo bëggoon laaj Zal comme bàyyi na làmb Zal si lan la nekk instant bi waaw bu bàyyi làmb damaa tumoon navigation

jaajëfal ah di contane si yow bu baax baax ñew nañ nga yaatal ñu waxtaan ak ñun affaire yi amul benn jeune di contane si yow bu baax baax ci dalal bi ñu dalal ak yaatal bi ñu yaatal bañu mëna mun waxtaan bi ñu balé rek nga wax le mot de la fin gërëm ñi nga wara gërëm bëgg ñi nga bëgg bëgg yëpp. wa xana du leen nuy Lamine. Mhm. di la ñaanal site bi mhm. yalla dem ba nekk té fm di bakki sayidina yalla man nako mhm. xale bu ndaw nga xamna la bu baax. yo xam nga bu baax. yax sa ko ngay. nga gëm sa bop ibi fii ba instant man sama closo li ma koy jeexal ya kay jeexal mbir moo ëntu wala senegal rek man setan na la kontaan naa ci yow bu baakha ba di kont de euh, nuyu tamit Baye Zal sama tondo di ñaanal tamit euh, sama yaay la fi yag te wër yalla na fi yag te wër di ñaan sama papa fu mu teud yalla na ko gënal fu mu joggé yalla ko yàlla jégal te yërëm ko xay ko ci adina sama xarit lo ndax ma bëggoon di ñaanal tamit sama tante tan Aminta Diouf di nuyu famille Assou Mbène Niang yëpp famille Samou Ndiaye yëpp sama kër tondo ma di nuyu ñom ñep di nuyu sama tante gogo ta sukay ta adama ñang ta ndoy ñom ñep ma ngi nuyu di nuyu sama papa gogi musa sama papa ibu sama papa pap ndiaye ñom ñep ma ngi bëgg di nuyu tamit sama papa bu ko juuf bu baaxa baaxa baaxa baax di kay na yalla en bi mu enu yàlla ko yàlla antanal fal ko yalla gëna wëral cëri di nuyu wa senegal senegal yalla fi def jamm di nuyu sama boy beddu tan do andama ci lamb ku melni abdou fay bu ndaw sen ma ngi nuyu euh, petit am di juuf Assane Diop Zane Ndiaye junior mhm. maa ngi di sant leen di gërëm di leen nuyu yàlla. Mhm. du nuyu sama xarit yi Mbaye Diouf. Mhm. Sangot. Serigne Lam. ah Doudou Faye. Euh, Ousseu Bane. Gourmat Seck. Euh, Demba Keita sama médecin. ah waa télé Gourmat daal maa ngi nuyu ñëpp. du nuyu Babou Gueye. Euh, Pape Sarr. Assane banlieue. Ah, mun a ànd si làmb boo yëpp maa ngi di sant leen di gërëm du nuyu sama grand yi. di nuyu sama boy afan Diouf di nuyu boy Aslem fi moy tol dama fay am jamm Aslem di nuyu mer yep di nuyu xalé yep di nuyu wa zoal fadjur yep wax bi nak mhm. bu djuba yalla la mhm. bu dëngee nit momatul mhm. man ma djum bu dëngee te lay sante lay gërëm bu baax baax ci émission bi di nuyu Abdou Khadir Diouf bu baax baax ak nima Diouf man ko nuyu bu baax baax te wax sama tak dënn jorogo ko dégg nga oto laa soxla oto laa ngay laaj ah dina jox <laughs> ok Zal kon nañu